عليكم ورحمة الله وبركاته نيجيك إمام الأكبر إمام شيخ تجان سيد علي السيس أمنا خبار بمو بغا جوتا لنبوك جولدي راوتا نبوك طالبين نبايكو مني ينبوك السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الهادين المهتدين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci waa këram ak saxaabaa mi maa ngi nuyu kilifa yi nuyoo bu kawe kilifa yi muqaddam yi taaliba yi ak soppe yi ku ci nekk ci sa tur ak sa jëmi bopp. di leen xamal ne xew-xew ziyaara bi nga xam ne bindoon nañ leen ci ay lettre ziyaara bu mag bi ñu ko jàpp ci 19 ci weeru janvier ci fan ak juróom-ñeent ñu ngi wax ak mbokkatam ak kilifa yëpp ñu xertal ci taalibe yi wax ak ñoom ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax ku nekk rek na ci góorgóorlu def ci loo xam ne mosu koo def ci benn ziyaara rawatina ziyaara bi passé bu kenn wax ne defoon naa daaw ndax li nga defoon daaw bëgg nga ren lu ko ëpp te bëgg nga ñu defaatal la ko te bëgg nga mu ëpp bi yoon buy ñëw te nit li nga soxla rek loolu nga war a leble rawatina ci pays bàyyi loo ko lebal rek loolu ngay am ziara si nag maanaam mooy yow jóg nga ak sa bagage ne da ngaa dem ziara ji bàyyi te moom boo ko ziyaara rek mën nañ laa jàngal bayti bi ziyaaratu arbaabi tuqaa marhamun yëbri wa miftaaxun li abwaabil hidaayati wal yusri mu ne ziyaara nit ñi ragal yàlla boo leen ziyaara jee mu ne mu ngi mel ni pommade boo amee boo xam ne wala boo am boo xam ne da ngaa dafa fekk nga am métit boo xam ne ku ci diw pommade bi rek mu daal di wér dafa mel ni itam caabi lañ la jox boo xam ne dana la ubbil bunti njuub yëpp ak bunti yombalal la sa àddina lépp bu taxutoon ak dara sax lu may béyte boobu rek kon ziyaara ji war na ndax ku nekk soxla nga ñaar yooyu te alal mazuri an yukrima zaira kii ziyaara si itam bu amee lum terale ki ko ziyaara si dana ko dana ko dana ko teral te xam ngeen yéen ki ngeen jëm ndax am na ko wala mën na ko hmm. wala nit ñi jaral nañ ko ko wala jaraluñ ko ko doomu aadama yi jaral nañ ko lu nekk te lépp lu ko nit jox wala nga lebal ko ko danga nga fayeeku lu ëpp loolu kon nag ñu leen di laaya biir ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax itam na ñëpp waajal bi nga xam ne mooy bu mag bi ci fukki fan ak juróom-ñeent ci janvier ñëpp nañ ko waajal ci xol ak ci jëf te pare pareel ko ku nekk rek na pare def ci loo xam ne defoo ko woon ci ziyaare bi wéy bu ko defee yàlla bu la fayee da nga wax ne lii yëpp defuma ko woon waaye ku ci gàttañlu naan bu déwénee wala defoon naa daaw dang koy rëccu rek yàlla ñu yàlla musal ci rëccu waaw képp koo xam ne daal yaa ngi oote ne bàyyi sa sëriñ la na nga ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ziyaara rek mooy li nga xam ne moo dox seen digganteeg bàyyi fi mu nekk ku ci wéralul rek daanaka yàq nga sa sa taalibe wala wane nga ne yow taalibe nga ci wax waaye du taalibe ci jëf kon nag dañ góorgóorlu bu baax a baax feddali kóllëre gi nga xam ne moo dox suñu digganteeg moom feddali mbëggeel gi itam yeesal ko bu ko defee buñ dëggoo ci kanamam feneen fuñ taxaw rek ñun tam danañ fa daal di dëggu yàlla danañu defal loolu yàlla na yàlla nangul ñu boole muqaddam yi nag nañ ko xamal taalibe te leen ko feddali yàlla yàlla nangul ñu yàlla yàlla nangul yàlla na yàlla nangul ñu yàlla na xool suñ jëf ba tam gërëm yàlla na xool suñ jëf ba tam gërëm yàlla na xool suñ jëf ba bu kenn gàttañ lu lañu yàlla boole wattu ñun ñëpp ci lislaam ak ci gëm yàlla ci barke borom ziyaara bi nga xam ne mooy mawlaana saahibul faydati tijaaniyatil kubra mawlaana cheikh al islam wa saadatil anaam cheikh alxaaji ibrahim ibn alxaaji abdillah at tijaani ñu góorgóorlu bu baax ci martabaam la ñu yàlla may ñu fekke ko ku ci éwénal ziyaara bi rek yàlla wane yàlla dana la garantil wala garantil nga sa bopp ne ziyaara yi di ñëw ci kanam yëpp da nga ko fekkee at waaw loolu rek jar na ko fekkee yow nit yi soxla rek nga na ko nit yi yàlla nga soxla ci moom itam yàlla moom ci boppam nee na kullu yawmin huwa fi sha'nin kon nag loolu nañ ko wéral ñun tam ci suñu digganteeg sëriñ bi wéral li nga xam ne moom lañu oote moom waxu dara yow yaa wax na taalibeem nga comme taalibeem nga nag li taalibe di mel mel ko lu taalibe taalibe di def def ko boo ko deful rek sa bopp ga weddi bind nañ ko mu jëm ci yéen ci turi muqaddam yu mag yi yéen ñëpp da ngeen ko jot ko ci jot ti da nga dégg kàddu gii kàddu gi ko ci dégg rek na ne sa lettre bopp la waaw jërëjëf mbokk yi kon woote baa ngi noonu mu di jaare bu mag mag bi ñu jàpp ko fukki fana ak juróom-ñeent ci janvier 2024 ñu ngi ñaanalaat beneen yoon imam Cheikh Tidiane Seydina Alioune Cissé yàlla guddal fan yu maye ko wër ba mu dellusiwaat eh, ci activité yi mu daan def yëpp jërë ngeen jëf ci déglu bi ak seetaan